ak jacuzzi mu ne ma defal ma tonifiant parce que ma yàkkamti mën na ko kon tonifiant de vingt mille francs la mu ne ma waa d'accord ci la ma jox vingt mille francs bi man dem jox ko ki nga xamante ne mooy sama patron ma indi huile bi nga xamante ne moom la ñuy maase indi serviette tëj chambre yi taal ay bougies tëj chambre bi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 mën na ko tons léegi ngir yàlla rek bàyyi ma parce que maa ngi bëggoon def la tout pour échapper mën na ko ngir yàlla rek baal ma ci pour beneen yoon sax boo ñëwee au moins ñu pro parce que man mosu man xaw ma góor xaw ma yëpp ngay def mu ne ma dangay fen après si la ma xëj xoj ma lii ma ci ginnaaw jël loxoom dugal ko sama biir awra awra gis ne li ma ko wax dëgg la mu ma laa tu me donnes envie de parce que lii mosuma ko woon xalaatee si jigéen yoo xamante ne dañuy lii nii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 loolu mu ngi nekkoon 2020. est-ce mu defee lu mu def ba pare dem yoonam ne ma carrément li ma fi def foo ko mënti wax ci àdduna kenn du la gëm ndax instant bi même boo demee porté ma plainte tamit.